aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke maam Cheikh Ibrahima Fall lay maam Saraay Fall ci la ñuy fatal sëriñ Cheikh Saalihu Mbàkke mu sax fi te wér di ñaan ci barke borom Tuubaa sëriñ Muntaxa Bachir Mbàkke sunu borom yàggal ko fi loolu te mu wér di ñaan nag ci barke alxuraan yàlla na yàlla wàccee xéewal ci àdduna bi te boole ko xam naa ne nag tey moom daanaka ab ziar lay doon rek ci soppe yi waaw dafa doon jamonoy ziyaar ci soppe yi di leen di leen baalu àq nag ci julli gi noo ngi leen di baalu àq ci julli gi diggante démb ak tey ak suba ak ginnaaw suba ak xat-xat yeeg coono yeeg lépp tawarkal la waaye nag yàlla jar na loolu yàlla jar na loolu kum ci doon rek ak kum mën di doon ak foo ci mën di nekk xamal ne fa nga nekk Mouhamed Baye Fall fekk ne la fa ne la jàpp loxoom bi Fall di la ziyaar maa ngi leen di ziyaaraat bu baax a baax ak kum mën di doon nag képp ku ko dégg rek maa ngi lay ziyaar barke maam Serap di leen wax nag ne leen dafa xawoon a xat fan yi fan yi moo taxoon dugalu ma woon dara waaye daal ñu ngi leen di ziaraat ci bis yu yi nga xam ne ci lañ toll ci juróom-ñetti fan jàpp juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weer wii nii mu taseek aydul ah, laydul ayd aydul kabir aydul fitri tabarkàlla yàlla na yàlla barkeel lépp luñ ci jaamu yàlla ñu ko yàlla nangul lu ñu ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di ziaraat bu baax a baax a baax nag di ñaan nag yàlla sa borom ci xéewal ci àdduna bi te boole ñu ko noo ngi ñaan tam li nga xam ne mooy gàllankooru àdduna bi ci jamono bii ñun ñëpp ko xamandoo moom Covid bi moom gis nga ko ni mu def ñi naan troisième vague ñi naan quatrième vague mu commencé di soppiwaat jamono bi ñun ñëpp nañ ko ànd ñaan ko yàlla jaam ab jaam daal yuuxoo ko yërëm te la am waaye yàlla yorog wàllu yàlla yuuxu nañ jëme ci yow mbas mi moo ko fi indi yàlla ko fi jëlee ci barke Serigne Touba noo ngi leen di ziaraat bu baax nag. di ñaan nag ñi nga xam ne ñoo war a def ay bag yooyu ñoom itam lépp lépp lépp ñu ci yittoo saa borom defal leen ko te defal leen ci ay diplôme te ñu jariñoo ko muurloo ko barkeeloo ko ñoog seen njaboot ak ku leen ko yéene ak kun ko yéene ci barke borom Tuubaa di ziar nag saa mbokki nag saa mbokki bopp yi maa leen di ziaraat bu baax a baax daf ma def surprise nag dama dugg Colobane rek ndeysaan waa Colobane gépp génn xalaatuma woon sax loolu noonu la daloon Ali Silasia moo ma dal Ali Silasia ba muy dem Amérique ba muy dem Jamaïque dafa yaakaaroon ne rek ay ñetti nit ak fukki nit la fay fekk waaye wallaay dafa dem la fekk kawe ndeke def lu baax am na solo wax lu baax am na solo ak képp kum ci doon ak képp kum ci doon même su ma la woowul téléphone na nga xam ne sama téléphone bu mooy saturé mënu ma enregistré numéro yëpp mais kum ci doon kum ci doon xamal ne ñëwaat naa ba ci yow joxaat la sama loxo muy àdduna bi yëpp nag à travers le monde ñëpp laa mën a wax waaye dama koy tàmbalee ci Colobane foofu nag tabarkàlla yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel barke maam Sëriñ Fall noonu leen di bu baax tey wax ne maqaamu ibrahima wa man daxalahu kaana aminan wante nag walillahi ala naasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan man istataa jooju rek la ci yàlla jublu woon tabaski moom itam rëy na lool nag waaye taxu ko diis ndax alquran dafa wax ne tabaski moom lan yanaala laahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaalahu taqwa minkum yàlla nee na gaañi xar yu rëy yi deret ju bari ji yàpp weeg muusal yi yàlla nee soxlawuma soxlawu ma loolu walakin yanaalahu taqwa minkum ragal gi ngeen ma ragal ci ci nangul ma ko rek ma koy def lu ngeen def ko ngir sama jëmm rek doy na ma loolu daal laa ci soxla waaye du xar mu rëy maag xar mu tuuti maag nangam ak yooyu yëpp daanaka tawarkàlla bu mënee rëy te yaatu nag moo gën yàlla ku koy cëral da nga koy tibbal lu yaatu tawarkàlla waaye yàlla na ko doole mate rek te yàlla na ko jikko jikko bañ a soppi ba nu mën koo barkeeloo ndax Seex Alaaji Abdul Asiis daan wax ne bàyyam Sidi Aji Malik daf daan wax ne fii moom aada rek moo fi daan bidaa waaye bida moom du fi mës a daan du fi a daan di waaw bidaa rek moo fi daan bidaa ak aada daal ñoo fiy daan diine waaye diine moom du fi mës a daan mukk bida wala diine daan fi aada kon yu mel ni yooyee nañ koy moytuwaate di ko sóoraale bu baax a baax te sóoraale jaami yàlla yi itam mbokki dëkkandoo yi mbokki taalibe yi ñun ñu reel ay xàq ba ci musique bi ba ci jaamu yàlla bi nga xam ne da dégg ñu koy wax dara ci internet bi rek nga nga encaissé loola jàpp ne jàpp ne noona la mel daal ko ci siise wax ju ñaaw ji nga dégg ci moom waxtu wu nekk rek yow loolu ngay continuer di ko partager di ko waxee te xamoo waa ji sax mosoo ànd ak moom tukki mosu leen a seq xaalis musu leen a jëflante ba mu woor la yooyu nañ ciy bàyyi xel dafay faral di wàññi yoolu jullit digganteem ak boroomam dafay faral di rikki yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ak yeneen xeeti sew-sew yoo xam ne dafa nekk diggante nit ak nit nekkaat diggante julit ak julit nekk nag diggante surtout nag diggante mbokku taalibi ak mbokku taalibi surtout nag diggante murit mbokku muritam foofu moom sëriñ bi rek moo fa war di dox sëriñ bi rek moo fa war di dox te jàpp naa ne moo fay dox itam nag kon ñu ngi leen di ziaraat bu baax di leen ñaanal nag mu ak wér ak wërsëg aajo ju fa jóg mbir mu jub saay rek baatin doole suñ babakat nu Cheikh Rafal barkeb sëriñ Saliou dafa fekk ne dañuy dundal sunna rek dañuy dundal sunna waaye bu nekkul woon sunna si mu doon wala li nu ko yàlla teg kon neneen lañ ko sëriñ Tuubaa nekk ni fii ci njaarim mag ñi eggoon nañ ci ndeysaan bu tabaski egsee am ñaari xar da ngay denc benn bi pour màggal ku ci am benn xar nag moom tabaski gi moom da nga koy jël rek daal di rey say ganaar togg sa cere digg bëccëg tey xaar nag léegi maanaam waaw màggal ga moom da noonu la naan def ñuy dem di dem ba Serigne Touba yéeg loola gis ne xari tabaski yi mag ñi rendeetuñ ko ñu koy dencal màggal gi te Serigne bi buggut a su na ci la leen woowaat dajale waat leen delloo si waat leen ci xel moomu xamal leen ne maanaam tabaski dafa am nu mu doxee ci kàttanu suñu borom di leen ko defee noonu bu màggal egsee nag li ko dala ci ganaar ba ci gileem bu ci waay xeeb dara xeebuma ci dara yéemuma ci dara kon daf warrek, war rek nu di ko def yal na ko motli yàlla nu ko nangul yàlla nu ko nangul li nekk suñ xol yàlla ko yàlla fas bu dee lu baax jàpp naa ne lu baax la ndax man sama audio diglu, ku baaxul doko ko diglu. képp ku baaxul boo ko tàmbalee déglu sunu borom moo lay fàqat yow nga dem seeti leneen lu dul lii barke maam Cheikh Rafal nag lu ma waxtaan ak nu mën di toll ci yonent bi di ku te koy kat te ngi koy may ci yéen laay xamewaat ne li may def li may def kat yéen a may déglu te wallahi wallahi wallahi wallahi la si laa ilaaha illa sàkkuwuma ci dara merewuma ci dara soxlawuma ci dara xaw ma xaw ma ko sax dama koy def rek te yàlla tax ibadatan lil xubbi walam tàkkulu tali bi naimi kon noo ngi ziaraat bu baax a baax nag maa ngi ziaraat nag sama waa dëkk bi nag waa njaarim ñoom itam ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax a baax a baax surtout waa marché njaarim bi nag sëñ Malick Fall sama jëwrin ji maa ngi koy ziaraat bu baax a baax a baax monsieur le maire sëñ maa ngi koy ziar bu baax gis naa si jëf ju rëy ji ah gis naa si ji waaw waaw gis naa si jëf ni nga def ak imaam yeeg kilifa yi ci dëkk bi yeeg ndongo daara yeeg tawarkalla loolu lépp jàll na maa ngi koy maa ngi koy gis ci internet bi tawarkalla yal na yàlla barkeel la yal na yàlla barkeel la man kat su ma la mënoon a iliré waat dama lay iliré waat kat waaw damaa xamul nag nu gouvernement yi doxee ak nu état yi doxee ndax loola moom du saa mbir waaye daal man daal ni nga mel ci dëkk bi moom wax dëgg yàlla kontaan naa ci lool tawarkalla waaw du sama intérêt personnel nag intérêt public la man lu ñëpp bokk laa gëm barke Cheikh Rafal te ci laa la gis yàlla na yàlla jàppale la yàlla na sëñ tubaa gën teg loxo barke maam si raay Fall noo ngi ziaraat bu baax a baax nag képp njabootu sëñ tubaa gi nekk njëriñ gépp ak njabootu maam si raay di ziaraat nag sama mbokk jàngkat yi nag sama jàngkati xaside yi ñëpp nag tawaat kàlla waaw kuréel yëpp waaw waaw moom su ma limee damay kii rek moom limu ma limu ma waaye daal tawaat kàlla comme ci doon daal la waxoon rek xamal nee naa la jàpp saab loxo ziar dama koy teg ci loxob sama waa ji nag suñu alaaji fay mooy liggéeykat bu mag bi nga xam ne liggéey bi nii bu yaatoo ba ku nekk man cee jot moom itam mooma suñu El Hadji Faye ca France moom itam moom mooy defaraat lii fu ma toog bu ma ko defaree bu ma noppee moom moo koy jël defar ko defar ko defar ko defar ko ba tabaarkàlla sëriñ Mamour Mbacke moom itam ca Ndar ñu ngi koy ziaraat bu baax a baax a baax a baax soxna Seynabou Sourang ñu ngi koy ziaraat moom it jàpp na ci combat yi bu baax taalibib sëñ Tuubaa boobu li seen taalibib sëñ Tuubaa ku bëgg Seydina Muhammad bëgg Rasulullahi lool bëgg sëñ Muntaxa lool tabaarkàlla yàlla na yàlla barkeel maa ngi lay ziaraat sa Baay Faal maa lay ziaraat baax soxna Seynabou Sourang yàlla na yàlla barkeel la ak suñ njaboot ñëpp barke am sama Faal ak sa waajur yeeg ñëpp tawarkàlla yàlla na yàlla barkeel leen ñun itam ñu ngi ñaanal suñu waajur yu góor yeeg yu jigéen yi fi ne saa borom barkeel leen bi jaay seeli wujudi sa altuka bil qur'ani wal kutbi kulliha bi asnaika al ulya bi ayatin fusilat bima fihi manquutun wa ma fihi muhmalun allawtu bir ruhi wal jismi xadaadan ay ca gaañi bisimilah kon ba kii incha allah su ko defee bu subaa rek ga ñenn ñi nag ñi sant noonu nan xaw a kii ci kii rek xam ne dafa kii ndax bu kii day kii yàlla yàlla barkeel maa ngi ziar waa Autriche yi ñëpp nag sama soxna ak ñi fa nekk ñëpp ñoom soxna nday faatu nday faatu jaañ ñoom ñëpp leen di ziar wax dëgg yàlla waa ndakaaru yi ñëpp tawarkàlla sama waa kër ñëpp maa a baax tawarkàlla yàlla na yàlla barkeel Cheikh Amadou Mountakha Mbacké Bassirou yàgg fi lool te wér na yàlla barkeel na maa ngi ko def ngir sa jëmm barke borom Tuubaa yàlla na yàlla barkeel leen ñoo ngi leen di ñaanal mu ak wér ak wërsëg aajo ju fajoog mbir mu jub saay rek baatin doole Sëriñ Bamba kàttanu Cheikh Rafal barkeb Sëriñ Saliou yàlla na yàlla barkeel njaboot gi barkeb Cheikh Rafal jaa jëf